Salam alaikum. Bonjour tout le monde. di njëkkee d'abord di remercier ñëpp muy góor muy jigéen ñu nekkoon di soutenir ma petite sœur je me présente je suis Amadou Baldé grand frère u Dieyna une vidéo c'est pas dans mes cordes et que c'est pas chose facile mais am na fu mbir di toll je crois que borom dëj bi ci boppam moo war a génn et que le moment il est venu d'abord di commencer di retracer l'histoire pour ñoo xam ne elles ou ils n'ont pas compris la situation vu que Dieyna c'est une jeune fille qui à Kolda di doon yëngu ci wàllu musique yàlla boo yàlla def ni mu bokkoon ci émission ci euh, compétition Sen Petit ci la commencé génn il aimait la musique depuis huit ans yàlla def na ni mu ñibbisi Kolda continuer jàngam day doon jàngee la vie des et je peux dire que ça peut se réaliser jusqu'à maintenant d'être pilote ou de devenir sage-femme yàlla def ni bu monsieur Diop tabaxee école am ISEC bu Kolda mu dend ak suñu kër bu koy doon inauguré ci la xamante ak xale bi doomam invité ko concert muy Abiba au stade régional de Kolda ñu gis talent xale bi détecté ko ba après des va-et-vient entre Kolda Dakar Diop bëggoon ko produire jël ko en charge ci labelam muy Gamboul Production Bon, au début, on, est, on refusé. On avait dit que bon, bu produire xale bi ça peut se faire à Kolda vu que xale bi day jàng on veut que bu amee bac lay quitter Kolda après fu mu dem bon c'est ça parce que nous bon dans notre famille on respecte le choix de tout un chacun et la liberté de tout individu négociation yi mu kiiwee bon les parents ont eu confiance c'est un éducateur c'est quelqu'un qui est connu au niveau national et international, donc euh, ça peut arriver tout un chacun du C'est comme Nirki Djogé, par exemple, en Europe ou en Amérique, ñoo gis sa doom repéré talent muy ci football ci musique ci lu mënti doon ba bu la neewee je peux prendre en charge sa carrière mën nga ko bon question de bonne foi la la bonne foi se présume donc euh, nit mu mënul xam lu nekk ci biir xolu nit wala ci xelam personne mënu koo xam donc on peut pas connaître un être humain def confiance rek jox ko bu xale bi jógee Dakar Kolda dem ma Dakar nekk ci sëram y avait problème de distance les voies de communication au Sénégal c'est très difficile entre relier l'école ak studio bu muy répété ñibbi këram ah, tout le temps day doon guddee te guddi wóoru waaw ci la monsieur le sieur Diop est naan ko bon je veux que tu déménages et que ma boole la ci benn kër boo xam ne ay kilifa ñoo fa nekk ak njabootam donc tu vas vivre ci néeg bu nekk ci kaw ñoom ñu nekk ci suuf waaw bu mu présenter famille bi c'est sous le voilà nee na moom mooy tuteuru xale bi et tout le contrat aussi le permettait ci la dem ci lu xew ci la xewee man je condamnerai pas la petite. Même si c'est ma soeur, je peux pas être juge, bourreau juré. C'est impossible. donc euh, affaire bu mu xewee xale bi tiit na xamul musu koo xam ñii naan commencé na tudd ak xale bi depuis deux mille quinze nit booy wax waxal loo xam ne ëllëg mun nga ko mun ngaa jaaxaarloog sa borom waxaat ko parce yàlla nee na lu ngeen ma def mun naa leen ko jéggal waaye lu ngeen def seen morom moom rek moo leen ko mën a jéggal te lépp looy wax nga yaakaar boo ko waxee benn réseau social parce que sa ça sera pas pris en compte tu te parce que lépp lu xew ci àdduna yàlla dina ko jël en compte kon lépp looy wax rek wax ko ngir yow ak sa borom sa diggante ak sa borom dee ko cee xool ni vous ni moi ñoo wax exactement jour bu fee xewee xale bi tiit na bëgg nañ koo avorté loo et daw na avertir na waajuram ñun buñ ko yéegee on a appelé le concerné il a avoué ni moom la mu delluwaat quelques semaines ne du moom parce que il est impuissant ñu ne ko ok comme tu rejettes et kii xale bu jigéen la moo ngi ci yoon noon accepte jël en charge say dégâts et on va continuer et après mûre réflexion bon le gars il était toujours là bruit bi di continuer ma ne ko attends tu peux pas faire ce genre de dégâts et tu assumes pas et tu nous fatigues ci la wax ji dem nee na non il est impuissant donc il voulait salir la réputation de la petite fille ci la xale yi jéem a monter pour prouver ni il est puissant il est il peut faire un enfant donc c'est tey vidéo boobu moo tax ba coow li jóg parce que man bu ma leen koy wax au début dañ ma ne y avait pas de preuve que ni lépp loo monte def devant une société telle que la société sénégalaise il y aura toujours ay nit yuy taxaw la noo amul preuve def nañu certes que Diop a formé beaucoup et beaucoup sont prêts aujourd'hui à lui défendre jusqu'à ñu perdre seen dignité seen honneur ñu naan oui les parents n'ont pas parce que xaalis lañ buggoon il y aura ay nit yuy taxaw naan lanoo amul preuve def nañu certes que Diop a formé beaucoup et beaucoup sont prêts aujourd'hui à lui défendre jusqu'à ñu perdre seen dignité seen honneur ñu naan oui les parents n'ont pas parce que xaalis lañ bëggoon man bu ma deewee man ak sama bàmmeel sama yaay keneen ak keneen bu ñu bu ñu lekkee dana mu Diop ëllëg yow man ki am dañ ko koy delloo man j'ai jamais goûté l'argent du Diop dans cette affaire comme membre de famille man je à l'extérieur magu Diarra ñu ci bari ñoo ngi extérieur donc ñoon bu ñu fiy ñëw job andi wu ñu fi kenn Sénégal mënul taxaw naa ne moom moo ñu fi andi suñuy diplôme suñuy jàng moo ñu mayoon ba ñuy ñëw fi di fi liggéey kon donc nous on ne pas de quoi s'occuper de notre petite sœur mais du yënguwuñu ci wàllu musique bu ñu gisee kenn ku ci yëngu bëgg na koo jàppale bah c'est logique on on lui laisse mais c'était ni l'argent bu ñu bëggoon xaalis yu jóg kon tey bu ñu fi yegg on s'en fout de son argent on n'en veut pas on veut que juste l'honneur et la dignité de la petite ñu rétablir ko ci la Diop dem porté plainte nga def say affaire ba pare dem porter plainte ba pour vous dire elle n'a pas gardé l'affaire elle s'est battue comme toujours nit boo xam ne ni dafa gëm boppam et je la et je de ma petite fille de ma petite Parce que moom elle a eu des rêves elle voulait avoir un avenir boo xam ne ñu bari ñoo ngi toog tey amuñu amuñu rêve amuñu avenir elle s'est battue pour la l'avoir donc c'est une femme qui s'est battue pour avoir un un donc bu dee bëggum xaalis la woon tey du fi toll am na xale yu jigéen yu bëri tey bari nañu ay far dañuy mbaraan et tout c'est pas son cas lu ne jiiñ nañ ko ko fekkuñu ko ci baar fekkuñu ko muy tuux wala muy naan wala muy nekk di fecc ci ay bois de nuit elle ne le sait pas elle le fera pas coow li jóg na bu ku nekk di wax waaye lu tax dénoncé wul et tout elle a frappé toutes les portes des autorités pour dénoncer commissariat bu ne dem na fa mais dañuy dégg plainte bi ci suuf personne ne voulait que affaire bi mu jóg jël na ay avocat avocat bu mu jël ñu jënd ko mu bàyyi dossier bi donc c'est pas question ko defuñu on a tout fait mais le Sénégalais ainsi am na nit ñu baax ñu gëm seen bopp ñu nekk di liggéey ci yoonu Sénégal ci justice Sénégal mais am na tamit ñu bon donc c'est dans tous les pays du monde boo demee loolu moo fay am bu waa ji porté plainte nag ci la coow li jóg vu ko boroom doole la yor na xaalis kon ñu ko conseillé woon na porté plainte ñu ñu tiital xale yi ñu teg wax ji ci suuf yàlla def na ni am na ay hommes yu intègre yu nekk ci police yu nekk ci justice Sénégal ñu topp dossier bi jusqu'au bout xale bi dem hôpital yàlla def na ni mu accouché bu mu accouché ba léegi ñu téye ko foofu ay quelques complication la amoon donc elle toujours la ay vidéo génn naan way dem na fi fecc na fi reena avant ni ñëw ci vidéo boobu dinoon moom mii ñu accusé woon le présumé moom moo dem reconnaître doomam yónni imaam na ko dem tudd ci biir hôpital jey naa nii buusewul demul ngente demaanul ngente gisul sa xar bu ñu reyal doomam donc kooku moo ko moo jox moo jóg tuddee doomam Seydina Tanor Diop xaritam boo xam ne bu mu amee problème ak nguuru Abdoulaye Wade moo ko hébergé woon à Bordeaux bu problème bi jeexee moom ak kooku ñoo ñibbi si Sénégal ba kooku di ko géral tey activité am kooku moo ko relégué ba mu nekkee ci loxo yoon donc c'est logique bu ko tuddee woon sa je sais pas qui il veut c'est son droit parce que c'est le droit sénégalais qui le permet moo ko may yoon moo ko may autorité ko boo demee bu jur ba reconnaître sa doom yow góor ki yow ya yow yaa am autorité tuddee ko ku la neex jox ko sa sant nit mun naa reconnaître doomam ci yow ci droit Sénégal te bu la neexee yoon bu la forcé ñu def test ADN yow la yoon mun naa ne di nga jël en charge xale bi mais obligé wu la nga tuddee ko wala jox ko sa sant donc droit Sénégal moo ne boo reconnaître yow yaa koy def donc ñun mënuñoo réclamer justice et di violer les droits c'est impossible man je suis juriste donc je respecte décision euh, loi wu réew comme fu ma nekk comme feneen ak feneen pays boo xam ne lii la dogal loolu laay loolu laay d'accord même si c'est pas juste mais on est obligé de de de respecter contrairement ci droit européen yaay ji mooy choisir non bu mu prénom bu mu bëgg mu jox ko doomam et si yaay bi bu ko neexee mun naa raaye le le nom euh, du père du ko mentionner avant euh, avancement boobu ñun yeggaguñu fa suñ droit yeggagul ci kii yooyu parce que jigéen bu ëmbee neuf mois ba dix mois mu nekk ci ay problème bu juree moom moo waroon choisir tour bu ko neex mu tudd tuddee ko mais ñun yeggaguñu foofu Dieyna bu génnee video bu ko neexee man mun naa génnee vidéo parce que ce que vous êtes en train de faire peuple sénégalais ñaari jurisprudence ñoo fiy juddo boo xam ne ci côté justice la jóge boo xam ne ci société bi lay jóge kon donc man si je comprends bien même si je dis que cette vidéo peut-être elle a été montée de toutes pièces falsifier une vidéo ou benn photo def ci date bu la neex tout le monde peut le faire même ici moi étant juriste je peux faire avec la nouvelle technologie on peut le faire donc rien ne justifie que c'est elle ku bëgg a gis Dieyna wala xam condition bu mu nekkee nit bu kii bu mu juree le 4 avril ba tey moo ngi ci hôpital ak doomam et vous vous permettez de l'insulter et insulter sa famille au nom de quoi tey ji vous laissez une jurisprudence qui va rester ci réew mi mooy maanaam tey jigéen bu ñu tooñ bu xale bu jigéen bu am problème yi am doom ci situation yu méttee yi soit que ça soit viol que ça soit acte de pédophilie ou détournement il y aura toujours ay nit yuy taxaw naan la noo amul preuve def nañu certes que Diop a formé beaucoup et beaucoup sont prêts aujourd'hui à lui défendre jusqu'à ñu perdre seen dignité seen honneur ñu naan wéy les parents non pas parce que xaalis lañ bëggoon man bu ma dee man sama bàmmeel sama yaay keneen ak keneen bu ñu bu ñu lekkee dërëmu Diop ëllëg yow man ki am dañ ko koy delloo man j'ai jamais goûté l'argent de Diop dans cette affaire comme membre de ma famille man je suis à l'extérieur magu jeeraaw ñu ci bëri ñoo ngi extérieur donc ñun bu ñu fiy ñëw Diop andi wu ñu fi kenn Sénégal mënul taxaw naa ne moom moo ñu fi andi suñuy diplôme suñuy jàng moo ñu mayoon ba ñuy ñëw fi di fi liggéey kontaan que nous on ne manquait pas de quoi s'occuper de notre petite sœur mais du yënguwuñu ci wàllu musique bu ñu gisee kenn ku ci yëngu bëgg na koo jàppale bah c'est logique on on lui laisse faire mais c'était ni l'argent bu ñu buggoon xaalis yu jóg kon tey bu ñu fi yegg on s'en fout de son argent on n'en veut pas on veut que juste l'honneur et la dignité de la petite ñu rétablir ko ci la Diop dem porter plainte nga def say affaire ba pare dem porte plainte ba pour vous dire elle n'a pas gardé l'affaire elle s'est battue comme toujours nit boo xam ne ni dafa gëm boppam et je la et je suis fier de ma petite de ma petite sœur parce que moom elle a eu des rêves elle voulait avoir un avenir boo xam ne ñu bëri ñoo ngi toog tey amuñu amuñu rêve amuñu avenir elle s'est battue pour l'avoir donc c'est une femme qui s'est battue pour avoir un, un avenir donc bu dee bëggum xaalis la woon tey du fi toll am na xale yu jigéen yu bari tey bari nañu ay far dañuy mbaraan et tout c'est pas son cas lu ne jiiñ nañ ko ko fekkuñu ko ci baar fekkuñu ko muy tuux walla muy naan walla muy nekk di fecc ci ay bois de nuit elle ne le sait pas elle le coow li jóg na bu ku nekk di wax waaye lu tax dénoncé wul et elle a frappé toutes les portes des autorités pour dénoncer commissariat bu ne dem na fa mais dañuy dëgg plainte bi ci suuf personne ne voulait que affaire bi mu jóg jël naay avocat avocat bu mu jël ñu jënd ko mu bàyyi dossier bi donc c'est pas question que defuñu on a tout fait mais le Sénégalais ainsi am na nit ñu baax ñu gëm seen bopp ñu nekk di liggéey ci yoonu Sénégal ci justice Sénégal mais am na tamit ñu bon donc c'est dans tous les pays du monde boo demee loolu moo fay am bu waa ji porté plainte nag ci la coow li jóg vu ko borom doole la yor na xaalis kon ñu ko conseillé woon na porté plainte ñu tiital xale yi ñu teg wax ji ci suuf yàlla def na ni am na ay hommes yu intègre yu nekk ci police yu nekk ci justice Sénégal ñu topp dossier bi jusqu'au bout xale bi dem hôpital yàlla def na ni mu accouché bu mu accouché ba léegi ñu téye ko foofu ay quelques complication la amoon donc elle toujours la ay vidéo génn naan woy dem na fi fecc na fi ree na avant ni ñëw ci vidéo boobu dinoon moom mii ñu accusé woon le présumé moom moo dem reconnaître doomam yónni imaam na ko dem tudd ci biir hôpital de naa nii buusewul demul ngente demaanul ngente gisul sax xar bu ñu reyal doomam donc kooku moo ko moo jox moo jog tuddee doomam Seydina Tanor Diop xaritam boo xam ne bu mu amee problème ak nguuru Abdoulaye Wade moo ko hébergé woon à bu problème bi jeexee moom ak kooku ñoo ñibbi si Sénégal ba kooku di ko géral tey activité am kooku moo ko relégué ba mu nekkee ci loxo yoon donc c'est logique bu ko tuddee woon sax je sais pas qui il veut c'est son droit parce que c'est le droit sénégalais qui le permet moo ko may yoon moo ko may autorité ko boo demee ba reconnaître sa doom yow góor ki yow ya yow yaa am autorité tuddee ko ku la neex jox ko sa sant nit mun naa reconnaître doomam ci yow ci droit au Sénégal te bu la neexee bu yoon bu la forcé ñu def test ADN yow la yoon mun naa ne di nga jël en charge xale bi mais obligé wu la nga tuddee ko wala jox ko sa sant donc droit Sénégal moo ne boo reconnaître yow yaa koy def donc ñun mënuñoo réclamer justice et di violer les droits C'est impossible. Moi, je suis juriste, donc je respecte décision euh, loi wu réew. comme fu ma nekk comme feneen ak feneen pays boo xam ne lii la dogal loolu laay loolu laay d'accord même si c'est pas juste mais on est obligé de de de respecter contrairement ci droit européen yaay ji mooy choisir non bu mu euh, prénom bu mu bëgg mu jox ko doomam et si yaay bi bu ko neexee mun naa raaye le le nom euh, du père du ko mentionné avant euh, avancement boobu ñun yeggaguñu fa suñ droit yeggagul ci kii yooyu parce que jigéen bu ëmbee neuf mois ba dix mois mu nekk ci ay problème bu juree moom moo waroon choisir tour bu ko neex mu tudd tuddee ko mais ñun yeggaguñu foofu naa bu génnee vidéo bu ko neexee man mun naa génnee vidéo parce que ce que vous êtes en train de fair peuple sénégalais ñaari jurisprudence ñoo fiy juddoo boo xam ne ci côté justice la jóge boo xam ne ci société bi lay jóge kon donc man si je comprends bien même si je dis que cette vidéo peut-être elle a été montée de toute pièce falsifier une vidéo ou benn photo def ci dat bu la neex tout le monde peut le faire même ici moi étant juriste je peux le faire avec la nouvelle technologie on peut le faire donc rien ne justifie que c'est elle ku bëgg a gis Dieyna wala xam condition bu mu nekkee nit bu kii bu mu juree le 4 avril ba tey moo ngi ci hôpital ak doomam vous vous permettez de l'insulter et insulter sa famille au nom de quoi tey ji vous laissez une jurisprudence qui va rester historique ci réew mi mooy maanaam tey jigéen bu ñu tooñ bu xale bu jigéen bu am problème yi am doom ci situation yu méttee yi soit que ça soit viol que ça soit acte de pédophilie ou détournement et elle va réussir parce qu'on l'abandonnera jamais pour rien au monde sama sang ça restera mon sang pour rien au monde dinaa ko abandonné wala naan waaye c'est parce que def nii boo xoolee xale bu jigéen bii tey nekk Touba dans les situations c'est parce que sa famille l'a abandonné on n'abandonnera jamais quelle que soit la situation cadre Diop ak Dieynaba c'est seul le juge qui est souverain de qualifier les faits et trancher la question man bu ma revisiter soixante-quinze de justice au Sénégal je me suis rendu compte que le juge sénégalais n'a jamais appliqué de droit en matière de viol ou de pédophilie ou de détournement de mineurs suivis de grossesse. Les peines sont tellement minimes, c'est scandaleux, que ay deux ans d'emprisonnement, cinquante mille d'amende ou deux cent cinquante mille ay xale yoo xam ne trois ans neuf ans dix ans dix-sept ans seize ans mais où va-t-elle société bi fu mu jëm man je comprends pas ay dommage yoo xam ne dommage moral moo gën a jafe ci àdduna psychologiquement vous savez même pas ce que vous faites peut-être notion psychologique comp doo leen ko comprendre mais lu muy détruire moo gën a grand man je suis personne la prison et que juge bi lu mu tranché je respecterai sa décision décision décision décision bi ci justice sénégalais boo xam ne moom kese juge bi moo souverain sur la question moo koy tranché au nom du peuple sénégalais non ne le demande rien du tout bu nekkoon sa guerre la ñuy doon wax aujourd'hui on a remporté parce que waa ji lu muy doon bañ tey reconnaître na ko yëkkati na ay mbokkam dem nañu seen kër gënte fa def nañ lu ñuy def nous on n'est pas mêlé à ça et ne sera jamais mêlé à ça après lu ci des moom ak yoon ak avocat yi ñoo ci xam man je vais jamais duma ci prononcé wu c'est rien ñoom ñoo fa xam lu ñu fa décidé ñoom la xale bi lu mu bëggoon ci am elle a retourné ñëpp accusé nañ ko lu ne du mu def dañ koy saaga di ko wax mais vous laisserez derrière vous loo xam ne société bi dina ci kii waat a tey jurisprudence la waroon nekk au Sénégal ko bépp xale bu jigéen bu ñu torturer bu ñu def dans ces circonstances kon situation yu mel nii te borom doole mu def la ko wala mu néew doole que justice nga dem ci yoon population bi nekk sa derrière toi pour que nga obtenir justice on peut pas négliger nos enfants mais tey au lieu de ça di di nekk dinaa dafa woo ba dafa bëgg xaalis mais vous savez rien de ce que vous dites jéenaa bu muy nekk di dem Dakar di ñëw nous on prenait notre propre argent jëndal ko bii avion muy dem di ñëw donc elle ne elle ne manquait pas wu ko te kenn du jur doomam jox ko nit naan ko demal def ko ci appartement ñu ne savez pas vous parlez des choses que vous ne maîtrisez même pas et puis c'est pas une prisonnière ñun mënuñoo def ay caméra ci moom wala ay radar kan moo ko mën na sa doom mu yàlla moo ko yar nit mun naa juddoo ci famille bu baax nekk doom waliw je sais pas mu xëy dara dal ko ndogal dal ko wala mu bon je sais pas ñaata xale yu jigéen ñooy dem te dag seen i far et vous vous pas ñaata xale yu jigéen yoo xam ne tey ñoo ñoo yàq bi à cause de vous la femme elle libre jéenaa bu sourire bu génnee mu sourire wala mu reetaan loolu kan la mun a blessé ça vous blesse xale bu jigéen bu solee le garde kan la mun a blessé c'est son corps man je respecte liberté ku nekk liberté am jigéen moom moom boppam lu ko neex mu def boppam en quoi ça peut déranger ou tuer une personne c'est que je vous comprends pas vingt et unième siècle nit ñi dépassé nañu foofu chacun est libre de se comporter nu mu bëgg ñu ku nekk libre na gëm lu mu gëm seul Dieu mooy atte suba lu xew pour ñu gëm yàlla am na ñoo xam ne gëmuñu yàlla c'est leur droit et c'est leur liberté mais pourquoi vous voulez placer place ñooñu bëgg a leen gëm loo loolu ñu gëmul mais arrêtez xale bu nekk hôpital ngeen topp di wax wax ju ne vous vous lan ngeen ciy gagné peut-être quelques sommes d'argent mais vous perdez votre dignité vous négligez les enfants chaque jour mineur yàlla sax dafa jëlale koo xam ne xale la ak ku yorul xe ku xelam matul da ngeen mën a xam nan la demee bu moom am ak Jóob lu mu sekk ak Jóob le Dieu peut le dire mais vous munoo leen ko wax keneen ak keneen mënu koo wax vous n'étiez pas là j'ai pas fait un live parce que certaines questions du ma ko doon répondre et vous allez me voilà vous allez un peu essayer de me perturber c'est pourquoi j'ai choisi de faire une vidéo pour vous dire que boo leen di wax wax leen lu ngeen maîtriser boo leen ci bëggee ay questions yu claires Diop a ses avocats Dieyna a son avocat mais dem leen ngeen jege ko ndax maître lii c'est vrai que loolu lii boo leen bëggee ci ay questions dem Pourquoi les journalistes, vous aimez écrire des choses, vous ne savez même pas, vous n'avez même pas de source sûre Ça va vous servir à quoi Dieu, elle ne sera pas la victime du peuple, c'est impossible. Parce que moi, je ne laisserai pas y faire. Bukine di situation bi, elle va continuer sa carrière, que ce soit au niveau international, s'il y a possibilité. Mais elle va continuer sa vie, elle va sourire. Beaucoup de gens, la situation, elle est partout dans le monde. que ça soit en France aux États-Unis au Sénégal Sénégal mooy problème bi jigéen amatul droit dem wax lii moom ko dal dañ koy naan tëjul on maltraite les femmes yow bu boo séyee yow yaa war a togg yow yaa war a bale yow yaa defi lii au de quoi lu tax jigéen ak góor dañu nekk pour complet pour pour qu'ils s'entraident donc amul benn l'islam wala benn religion que ça soit catholique ou benn